asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 4 septembre 2019 ñu ñëw ak yéen yëglekaay yi yëglekaay yi nag tey mu mel ni sunu lamb la ak yëglekaay bii nga xam ne moo di la tribune bu dee yëglekaay bi di sunu lamb nag ci xarima ak Abdoulaye daal tey moo séq waxtaan wu yaatu digganteem ak Balla Gaye numéro 2 bi nga xam ne mooy la Lion de Guédiawaye Balla nag wax na ci mbirum Ama Baldé mbirum Lac de Guiers numéro 2 ak mbirum rëg ak tamit adversaire am nga xam ne war na leen am ci saison yi nga xam ne moom la ñu jëm bu dee ci espoir yi la moom Balla Gaye moom la mu wax daal na li leer ba leer day gisul fi nekk nii ci jamono ji espoir boo xam ne def na loo xam ne nii kon war naa tax tey moom mu di ko tàllal loxo ñu ne ko lu tax mu ne ndax ñun ba ban ca tolloo di bëre dañ daan bëre premier combat deuxième bëre troisième combat ba bëre deuxième combat ba bëre li nga xam ne mooy spécial doore bëre grand combat nee na bañ ci jógee tamit dugg nañ ci li nga xam ne ni mooy tournoi wane fa suñ bopp jóge fa jël ay mbër yu mag a mag bëre leen bëre ñoom daan leen mu mel ni ki daal bàll neen loolu nag fi mu nekk nii moom dafa xaw a ngir mu gis ko te nee na ba loolay am ñu dem ca mboppat jot di bëre ji di wane seen bopp bu baax a baax moo tax mu jàpp ne de fi mu nekk nii xale yii léegi moom gisu ci koo xam ne ni faral nga di def lu mel ni ki noonu moo tax daal maa sens gi moom jàppul ne fi mu nekk nii am na ku mu ko war a defal ci xale yi nga xam ne ñoom lañuy wax fi mu nekk nii ci làmb ji ñu ne ko bu fekkente ne yaa kii nga xam ne ni ni moo doon Ama Baldé la tey mu ne waa Ama Baldé day moom ci benn côté mën naa ko koo nangul ndax nag am na loo xam ne nii wane na ko ci parcours am ndax wane na bu baax a baax boppam daan mbër yoo xam ne ñu xam la Malick ñaak exemple ba pare itam te li gën a garaaw dina daa dugg ci ab tournoi wane fa boppam ne na kon kooku moom fi mu nekk nii mérité nag sax xëy na ñi nga xam ne ñoo di VIP may ko saas bëre ak moom ndax nag tafaatin ku ko daan te tafaatin daan na ki nga xam ne dégg na roi des arènes muy Bombardier bëre ku dégg roi des arènes muy man mii dana kon jaaru na fi nekk nii daal ku mel ni Ama ñu wax ak moom ci wàllum kii nga xam ne nii moom moo di rëg-rëg baal na ne day mu nekk nii amul loo xam ni na ko wax ci li mu wax daal mooy li mu ngi ci lam daal li mu xam daal mu ngi koy ñaanal itam yoonam woowu daal mu continuer ko mu mel ni ki nag leneen loo xam ne ni tamit Balla Gaye numéro 2 ñëw na wax ci digganteem ak Bombardier tamit jàpp na ne loolu day lu war a man a nekk la Balla daal ne na fi nekk moom adversaire moom war na ko mën a am te bu dee Bombardier jëlee tamit na ne lu war a mën a nekk la moom Balla Gaye numéro 2 moo xëy ba tey ci yëglikaay bi di wax si sunu làmb ñëw nañ ci moom tamit ci jamonoy mbappat Balla na mbappat moom dañ ko daan bëre bu baax a baax a baax amuñu ci woon foo xam ne ni ab yemukaay la fuñ ko déggaan danañ kër bëre ji nee na bu ma daan dem nag maag baa baay baay bàll ñooy ànd nee daal loolu moom daan na am bu baax a baax a baax ñu mu ñëw nag ci yi ko gën a bokk na ci lii nga xam ne nii mooy mbappat mi ko am ak nga xam ne moo di mbër mi nga xam ne moo nekkoon rock énergie daal di daane woon moom mi nga xam ne nii moo di Balla Gaye numéro 2 ñëw na ci loolu nee na day maîtresse moo ko daan fi nga xam ne nii mooy ca làmb ci 72 heures mbay géey waaye nee na day yàlla daa def nag bi mu ko daanee boobu day mu am coow lu bëri moom maîtresse waaye nee ba yàlla def bañ

mbir yi moom yàllaay dogal am na ci ñoo xam ne waroon nañu mën a def carrière waaye yàlla moo ko tuddul keneen koo xam ne nii tamit Balla wax na ci ba tey rek muy Omar Fall muuma ci tere gi nga xam ne tere nañ ko bëre ndax ni mu nekkub muuma Balla na loolu day ah amu ci loo xam ne ni moom mën na ko jox waaye li am ba des daal xam naa ne bu nekkoon ci làmb bëre moom xalaat na ne des na gis mbër moo xam ne mbër mu doy doy doy waar la ñu ne ko wàll ak dëggeer numéro 2 nag est ce nekk roi des ndax mbër la mën naa bëri technique na te bëreem ci yoon la koy teg Tafa Gueye wala boog di magi Tafa Gueye nee na yàgg ki nga xam ne moo di Lac su ngeen bëre woon nar naa neex lool technique bëri na fa génn mu ne waaw loolu mën a nekk la ndax nee na Lac moom adversaire am yi bëreeg moom ni ñuy bëreeg moom fekk ñu ngi koy bëreeg moom du ñu ko daan nee kuy bëreeg moom da ngay dëggal sa bopp xeex ak moom waaw waaye nag boo ragalee loolu moom jàppal na yow du yaay ki nga xam ne yaay daan Lac de Guiers numéro 2 Balla daal tey xëy na ngar daa joo yëgle kaay bi di sunu lam lu bare bare bare bare waaye jamono jooju nag mbokk ma xam ne nii moom moo di Ama Baldé seen écrit ba nga xam ne mooy école it Fallaye Baldé moom seeni doxul cëng dikkul mbay laar ndax li leer ba leer saison bi ñu génne cinq victoire lañ ci am ak li nga xam ne mooy juróom-ñeenti defet jamono jooja sax Ama Baldé moom gisee su ko ak ay bët année balance yi nga xam ne mën nañ leen a limb ne wàcc nañu te ña nga ña nga xam ne jot nañoo wàcc itam wane wuñu seen bopp bopp bopp na te kii nga xam ne nii moo di Alaaji Mbay ak yeneen mbër yoo xam ne daal fi mu nekk li moom boo bëggee dégg dëgg gisuñu leen bu baax a baax alimaane itam ci ñi wàcc ba pare ñàkk ca la bokk Zil Baldé nag moom jàpp na ne li indi loolu lenn la xale yi léegi jiitalatuñu bëri li ñu jiital kay mooy ay gàllaaj ak i fa xuufaak yu mel ni kii noonu beneen doomi Pikine a ngi moo xam ne moom ab promoteur bu mag a mag la di sëñ Modou moom nag ubbi na saison ci taxawal ay combat yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey wax nu ko petit ba booy taxawal na wax ki nga xam ne moom moo di BMW ki nga xam ne moo di Mori Cargo ak Cheikh Super Jamono Cheikh Super Jamono tamit ki nga xam ne moom moo di sëñ Modou Niang taxawal na jooju làmb beneen xale ngi moom bu dëkk géejawaay bu jara bàyyi xel yëglikaay bi di suñu làmb xëy tey wax ñu ko muy càndum doo ndax nag candum doo fi mu nekk nii day mu ngi wane boppam saison bii jeex bëri na ci ñaari combat am ci li nga xam ne moo di ñaari ndam yëglikaay bi ba tey moo ñëw dinu ko wax bu ñu demee ca la tribune moom am na ko fa nekk muy Bombardier moom nag moom may chance gi fi mu nekk nii ni leeral na leer ba leer daal muy amaak booy ñang ak keneen ku ci ñëw rek pare na ngir may la saas ngir bëri ak yow Bombardier wax loolu ci yëglekaay ba nga xam ne moo di la tribune waaye dañuy dem nag ca lamb ja nga xam ne mooy lamb simple ja mu mel ni ki nag Adrien Senghor moom ren yëngu na lool yëglekaay bi xëy tey du ñu ko wax 32 journée lañ fa bëre li nga xam ne nii moo di 25 promoteur ñoo fa wàcc ci 25 yooyu am na ñeenti jigéen ñu teg fa lu toll ci 28 millions 200 mille francs jot nañ ko faa dugal Sint Sarr mi nga xam ne moom tamit promoteur u lit simple la mu mel ni ki daal kon li leer ba leer adressé ngoor moom ren yëngutu na bu baax a baax a baax a baax waaye leneen loo xam ne tamit gis nañ ko fii nga xam ne moo di ci yëglikaay bii nga xam ne moo di sunu làmb foo nuy wax tuus jàppal kii nga xam ne nii day moo di Balla Gaye numéro 2 daam ay fans yoo xam ne ay soppeem lañu yu jógee ba Mauritanie ñëwoon nag seet si ko yàgg maar looloo ñëw te ci yëglikaay yi nga xam ne moo di sunu làmb waaye dama naan alhamdulilah Aïssatou ngi nii toog sama kod sama rakk ju yaru ji te baax. salaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di leen wax na moon naa leen trop di gis euh, fan yëpp ndey kumba may nekkoon ci yeneen yitte rek moo taxoon ngeen gëjoon ma gis mais tey maa ngi fii dellu si jàkkaarloog sama mag sama xarit Babacar Babacar nuyu naa la. Aïssa madame Niang maa ngi lay nuyu di la ziar ah, di la ñaanal jàmm di wax ne tamit di am contentement toogaat ak yow nii ah am na solo xam naa ne gars namoon nañ la mais man maa la gën a nam mm-hmm. xam la demee xam nga des fois yitte jamono ji moo lay tënk ba des du chaque jour rek ngay mën a présent daal mm-hmm. mais bëgg nañ la bu baax a baax et puis di jéglu temps si baat bi saj moo ñu xaw a jàpp quoi dañu xaw a grippe tuuti waaw xam nga rek yaa ma gën a xam ak taw bi quoi mm-hmm. waaw waaw ah, Babacar ñu neex bu la dara jot parce que xam nga rek ñu soxla nañ la fi bu la dara jot yàlla na la grippe bi bàyyeeg jàmm ñu dugg si li nga xam ne ni mooy euh, tey euh, jàngat bi ànd see ki nga xam ne mooy Balla ñëw ak waxtaan bu yaatoo yaatu ak ñi nga xam ne mooy waa sunu mu ñëw nag ci carrière ñëw ci espoir yi ñëw ci lu point yu bëree bëri mais nee na fu mu toll nii daal gisagul espoir boo xam ne ni mérite na dajeeg moom. waaw loolu la wax moom Balla Gaye waxtaan bu yaatu mu seexal suñu naataango yooyu nekk sunu lamb rawatina Abdoulaye Dembélé ñu du nuyuwaat ñoom waa sunu lamb yëpp. ah Balla nag comme ñu ko xamee rek xam moom daa nekk nit bi nga xam ne nii tey niñ ko gisee si làmb moom moom soo ko dékkee micro li mu sentir da la koy wax. yaa ngi dégg xëy na moo tax mu jàpp ne gisagul tey ci actuellement si jamono ji espoir boo xam ne jàpp na ne prouvé na lu war a tax moom moom may ko sens. parce que jàpp na ne ñoom niñ doon bëree petit combat deux troisième combat deux xam ay deuxième combat. waaw jongante ba son doog am grand combat ba bëri spécial bëri grand combat def defaat li nga xam ne nii mooy ay tournoi jàppal bàyyi xëy na loolu mu wax noonu ci benn côté mën nañ ko ko nangul mais nag du tere am na ñoo xam ne nii tey ay man nañ ne ay xale la ñoo xam ne ñu ngi émerger di wane seen bopp bu baax a baax a baax a que tamit mën nañ mën nañ ci tudd ay quelque mais dañ ne xëy na boo tuddee mën nga am ñoo bàyyi mais am na ñoo xam ne vraiment ñu ngi wane seen bopp moom nag xëy na fi muy waxee xëy na moom jàpp na ne parcours bi mu def moo génération bi ñoom Modou Lo ak ñooñu xëy na moo tax mu jàpp ne gisagul ci xale yi koo xam ne def nga lu mel noonu waaye tey bu doon làmb da koo boole ak Ama Baldé dama naan ko citer mhm. comme xale boo xam ne nii am na lu mu wane bu baax baax a baax rëg-rëg tamit ak lu mën a xew xëy na ñoom ñu bañ koo nangoo koo jëlagu mais am na lu muy wane yaa ngi dégg parce que mu ngi def parcours boo xam ne actuellement sans faute lañ ko mën a ko waxagu parce que mu ngi reñe ci lutte avec frappe bi di reñe ci lutte simple bi kon kooku itam mën nañ koo lim mën nañ koo tudd xëy na am na ñeneen ñoo xam ne nii ñu ngi fi même booy Niang sax mën nañ koo tudd donte am na jafe-jafe ci diggante ak Lac de Guiers mais mu ngi ñëw mu ngi wane boppam ak yeneen yoo xam ne ni ñu ngi fi xay na nag li amoon ci at at yooyu ak li am jamono ji réalité yi du benn kon damay jàpp ne ñoom su suñu wéree ci li amoon ci jamono jooju ak li am jamono ji yaakaaruma ñu gaaw a bëri ak espoir yi mais tey lañ na ñu jàpp ne kon li ma xam mooy ñu jàpp ne situation bi am actuelle bokkul ak bi amoon ndax boobu itam vraiment ku ne xamoon na Gaston Mbengue mu ngi fi woon mu organisé woon tournoi boobu ñoom Balla Gaye ñoom bokk nag ay ñoom Modou boobu xam nga yooyu nag fi mu nekk nii xëy na promoteur yi fi Fallou Ndiaye def na ko fii mm-hmm. waaw daaw jéeg mu neexoon lool tournoi TFP. yaa ngi dégg mais li am solo daal mooy que ni euh, Balla daal xëy na tey waxtaan waxtaan bu yaatu. Mhm. waa waaw moom euh, ci biir waxtaan bi am na ko xam ne ni moom moom jàpp na ni def na li mu xam ne ni moom def na ko muy ki nga xam ne mooy Ama Baldé moom jàpp na ni tey gis na ni def na parcours bu mel ni moom parcours am. waaw Ama moom lu ñu la mën a wax mooy que ni li mu def moom vraiment. Euh, ci xale mën nañ ne parcours bu honorable la parce que ci carrière am ñaar defet lañ ci gis muy digganteem ak nees ak guy gi te defe naa euh, nees moo ko mujj a daan wala guy gi guy gi moo ko mujj a daan ba mu fa jógee ba tey defe naa ne ku ne gis na fi mu jaar dafa fa jógee defe naa ne jël ama neex jóge fa jël Malick Niang noonu day xaru non bi mu dugg ci ba sax la jël Malick Niang. Mm-hmm. yaa ngi dégg bu mu ci pare ñu ne kii day xaru mu gën dug dug ci TNT ba laay bëgg a wax. gañe nekkoon xam nga foo daan tafaatin daan fa guy gi daan zos jël Malick Niang boo xam ne li mu daani Sa Thiès ku ne gis na ko kenn mënul woon ci moom dara nga xeex moom daan ko. ñëw daanaan Papa Sow parcours ba honorable na ci Ama Baldé kon loolu mu wax ci Ama defe naa bëri na ñu ko wax ci Ama am na yenn xale yoo xam ne ni ma la ko daal a pour a may a man loolu dina gën a neexal lamb waaw euh, ba tey Babacar comme ni mu ko waxee rek nee na euh, Reug Reug ngi def parcours am mi ci yoon bi mais ba tey jàpp na ni des na pour mu yegsi si moom waaw non waaw rëg-rëg moom xëy na am na lu des pour mu yegg si ci la lool mën nañ ci d'accord waa mais moom mu ngi def parcours ah, loolu moom il faut ñun waaw il faut nangu loolu mais vraiment mbër la bi nga xam ne ak nii mu nekk nii di ko bëree ah bu ci jógulee xalaat naa fi ak at wala ñaari at moom moom dana liñ naan góor mokk leen xalaat naa dañ ko ko tëgg ndax problème bi mooy bi ñu ëndee giri de ñëpp dañ ne woon fii lay taxawee mais gis nañ ni mu ko daane avec la manière loo xam ne kenn xaaru ko woon mu daane ko noonu mooy moo mbër moo xam ne kon tamit loolu Balla wax dëgg la maanaam yegg seegul ci moom mais mu ngi def parcours et effectivement euh, Reug Reug mu ngi def parcours. ñu jógee ci Balla Gaye euh, dem fële ca Pikine seeti waa école de lutte Falaye Baldé ñoom nag euh, saison bi ñu jógee gis nañ ni demeewul noonu seen côté parce que si seen combat yi bëriwul noonu trop mais victoire yi. ñoo gën a néew li nga xam ne ni ñooy defet ci mu nekk loo xam ne nag Jules nee na xale yi dañoo teg seen i combat trop si mystique. waaw loolu si lu wax moom euh, wala balaa ñu ñëw ci li si li wax sax dañ lay jëkk xamal ne que loolu moom nekkul bilan boo xam ne bu baax la. parce que cinq victoire neuf défaite moom vraiment du lu honorable daal mais nag xëy euh, encadrement bi xam nañ lu waral loolu wala nangam dina ci gën a liggéeyaat ba pare tamit dafa am lu gën a metti foofu ren mooy Ama Baldé bi def année blanche loolu tamit gën na tax école Falaye Baldé na law ren ndax Ama soo amee combat day bëri lu muy yëngal yaa ngi dégg kantaan nag li Jules wax tamit ci xale yi ak mystique bi moom loolu moom am na ci làmb mbër moom wax dëgg yàlla bëri na ci ay mbër yoo xam ne moom maanaam mystique da leen gën a lépp boo xool sax dafa leen di jaral des ñu bàyyi seen entraînement topp àll ba ay ay ay ay ay ay ñëw sax du ñu am temps récupération du ñu mën a nelaw te loolu baaxul ci athlète loolu nag boo ko jiitalee de trop mën naam boo ñëwee ci làmb ji la nga war a bëri ak technique yañ la yañ la jàngalo est-ce que duñ ko ñemee def ndax lan ne nañ la bii laa bii naa nii la mel bii daa ñuul bii naa ci affaire de mystique day dem ba maanaam yow sa potentiel li nga mën techniquement doo ko ti ndax lan mystique bi moo la koy teree def mais mbër yaakaar na war na mën a utiliser li nga xam ne nii mooy xam-xamu bëreem ak xereñteem ak dooleem ak léppam jiital ko ci làmbam après mystique bi nag ñëw ñaan ñu mu am ay muslaay ak yooyu mais vraiment loolu si wax tamit yaakaar naa bu ñu ko seetee ba ci biir dañ koy gis ci biir làmb actuellement du école de Fallaye Baldé rek mais bëri ci làmb ji mu nekk phénomène boo xam ne bëri na ci làmb Babacar mais dañuy jóge foofu tam ba tey dugg ci li nga xam ne ni mooy euh, saison bii di donte des na tuuti rek donte euh, un mois moo ci war a des ak presque mais promoteur combat yi bu baax a baax a baax gis nañ fan yëpp combat di taxaw tey sëñ Modou ñaa tam ñëwaat ak ki nga xam ne ni mooy Petit Baboy BMW Mori Cargo ak ki nga xam ne ni mooy yoo xam ne neex na trop Babacar. waaw moom bu la neexee sëñ Modou ñaa sax nga ne mooy école primaire bi moom moom maanaam képp ku bëgg dem rek moo lay jàngal ABC. waaw wala abajada bokk ci moom nga koy jàngee. Mm-hmm. parce tamit mu nekk promoteur boo xam ne mën naa ne exemple la mu sëñ Modou ñaa parce que li tax mooy waxam te yi muy def da koy def yaa ngi dégg loolu tamit waaw da xëccoowul da doo ko dégg ci benn benn polémique moom wax dëgg yàlla te loolu tamit defe naa lu ñu war di wax la parce que lu jikko bu jara la mm-hmm. yaa ngi dégg bu xëyee tey jël ay xale jox leen avance saison bi des benn mois pour mu ubbi dañ koy rafetlu muy mu Cheikh Super Jamono ak Mouri Cargo wala muy BMW ak mooy Petit Baboy ñuy ay xale yoo xam ne tamit ay espoir la yi xam ne production Baba Diaw xam nga moo taxawal Pape Ndoye ak nga xam ne nii mooy xale ba nu mu saatu caatu géej waaye xaw ma fàtte naa tur ba daal maa ngi ci ak Jackson di mooy Pape Ndoye Jackson moom moo ko taxawal mm-hmm. taxawal tamit gàmmu géey soq kon mu ngi ñëw taxawal tamit ki nga xam ne nii moo di eh, eh, Mbagnick Kaïré mm-hmm. ak Jacob Baldé boobu tamit taxawal na ko Jetli ak euh, Jamteeri tam taxaw na dem promoteur bu bees promoteur bu bees la dëkk Géejawaay moom tamit ñëw indi Jetli ak Jamteeri kon moo lay wan ne promoteur yi actuellement ñu ngi ci Fallou tamit am na yoo xam espoir yoo xam ne mu ngi koy taxawal ba pare di dox yeneen combat ñoom ñëpp ku ci ne fi nekk nii yaa ngi lijjanti ay combat dañ leen di ñaanal rek ñoom promoteur yëpp yàlla na leen yàlla defal jàmm ba ñuy gën a am doole bu ñu mën a promouvoir lamb daal calendrier bi feex waaw waaw waaw waaw surtout loolu waaw calendrier bi feex jar na ñaan trop parce que bu calendrier bi xatee rek day feeñ ci nombre de journée yi nga xam ne mooy am ci lamb bi Babacar ñu jeexal ak lutte simple bi suñu lamb mu ñëw ak bilan bi ci Adrien Senghor 32 journée ñu mise fa lii di 28 millions 200 mille tamit mu nekk somme boo xam ne ni considérable na ci saison bi waaw loolu moo lay wax ne lutte simple bi mu ngi dox parce que bu dee benn Adrien Senghor dong la ñu def 28 millions Euh, deux cent mille ah jàppal ne kon vraiment lutte simple bi mu ngi wane boppam moom tamit vraiment muy loo xam ne duñ ci njukkal ñeen ñu dul promoteur lutte simple yi parce que xaalis bu toll noonu ñu fa teg moo lay wan ne ñoom tamit am nañ ambition tamit lamb simple ji gën ko yóbbu ca kaw ngir bañ mu dee loolu am na solo tey wax tudduñu la Ibamar ndax Ibamar bëri nañ fa simple ñu la fi nga xam ne ni tamit mooy ci àll bi waaw raison yi te fu ci naan ligue bu mu fa doon dox kon daal vraiment promoteur ligue simple yi mention spéciale mais rawatina jigéen ñi rawatina suñu jigéen maam jaara Thiam ñu ngi ko ciy nuyu bu baax a baax mm. ñoom Yacine Tissar Jackson nag moom vraiment di ko wax mention spéciale ndax moom it mu ngi ciy wane boppam bu baax a baax ak ñoom ñuy tëgg li simple yëpp ñoom layti ndong ak bu ñu limee dinañ juum mais Ablaye waaw Ablaye Diop waaw sama waaja borom suñu production ma koy nuyu ñoom ñëpp daal vraiment di leen wax jaaraama daal parce que wane nañ seen bopp bu baax a baax waaw Babacar ci loolu la tàggoo ñi nga xam ne ñooy suivre seen revue de l'arène di leen bëggee yéen ñëpp di leen ñaanal ni ñu leen koy waxee à chaque fois mais tamit Babacar ni ko wax euh, dundal lu bëree bëri bëri bëri Astou Ndiaye dundal lu bëri baax yaatu bëgg ñëpp macha allah yal na sa jàmm yàgg. di tam souhaité joyeux anniversaire sama bàyyi daaru boobu sama mag bi Omar Ndaw dundal lu bëree bëri bëri Ndaw Mourad yàlla bàyyi la si kanamu njaboot gi borom xolu or boobu noonu yal na sa jàmm yàgg. jaajëf Aïssa non loolu rafet na loolu rafet na bu baax a baax am na solo di nuyu sa mbokk yooyu yëpp mais di nuyu tamit ñi nga xam ne ni ñu ngi ñuy suivre bu baax a baax a baax waaye di nuyu koo xam ne mu nga ba États-Unis chaque jour daf may suivre te ne du ko nuyu maanaam dama koy ba ci biir te loolu warata am muy Ketchup Ketchup waaw xam nga Ketchup moom buuse moom beneen beneen affaire la nee na man maay ambassadeur u Guédiawaye mm. doomu ndeyu Pape Diouf ak Marcel Diagne ak Balla Gaye numéro 2 kon Ketchup maa ngi nuyu depuis États-Unis d'Amérique mais di nuyu tamit mbër yi nekk États-Unis yëpp rawatina ko mel ni tamit benn waaye boo xam ne ay sa bërki dem dafa ma defal lu ma neex daal parce que nga nekk nii di xaar oto nit fekk la fa ak oto droite na la Babacar nga fay nga ne ko waaw mu nuyoon te foo jëm nga ne ko temps mu dugal mu ne la yéegal yóbbu la ba fi nga jëm ñu koy wax Mam Mbay xam ne tamit ñoom ñoo ñu suivre fu ñu mën a nekk si àddina bi xam nga ñoom Assane Sarr benn sama dem ñoom Ousmane Diop Abdoulaye yi gaa yëpp xam nga du ñu bàyyi kenn maam Modou Guèye waaw xam nga fàttewuñ kenn daal bu ñu limee dinañ juum tuuti yaay Sarr duñ ko fàtte Khady Rose Ndiaye ma Fall ñoom ñëpp Awa Diop depuis Touba maa ngi koy nuyu di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp àq di nuyu tamit Aïda Ayra Diouf sama série naan ko mention spéciale waaw maquillage bi nice na noor macha allah Ndeye Coumba Fall tamit di ko nuyu di ñaar xalem boobu Fadel Mohamed suñu jarbaat yàlla na ko yàlla wéral ak xam nga jamono yi moom jamonoy nawet la taw beeg ndox mi waaw grippe bi day bëri quoi mais nag ñu ngi ñaanal malade yëpp tamit ñi tëdd si yi bu ñu leen fàtte yàlla leen yàlla yëkkati mais di ci beral koo xam ne ni tamit réew mi xam am na lu muy contribuer ci réew mi muy Cheikh Amar mm-hmm. yaa ngi dégg parce que am réew boo ci nekk ay samp fa ay société am fa ay employé di leen fay weer ñu yóbbul seen njaboot defe naa bu ñu sañoon dañ lay leen ñaanal yàlla yàlla jëlee leen fa ci delloo ci seen sago daal nawet bi commencé nañ bismillah rahmaan rahim yàlla na jeexal ci alhamdulilahi rabbil alamin di ñaanal ñëpp jàmm aysatu di kontaan ci yow yeneen jox rendez-vous suba incha allah